ñun waa FRAPP pare nañ pour jël suñu bakkan boole ko ak bakkanu waa HLM Mariste pare nañ jël suñu ruu boole ko ak ruu waa Tivaouane Peulh waa Gàddaay waa fépp ci Sénégal ñu am ay jafe-jafe suuf ñu bëgg leen noot ngir loolu bañ a am moo tax nag ñuy artu gouvernement euh, bu président Macky Sall ngir accord yi nga xam ne signé na ko ak waa HLM Mariste mu respecte ko mu respecté ko te xam ne duñ fi tok sétane li dal enseignant yi ak wa keur Docteur mu dal wa HLM Mariste depuis 2014 nga signé ay accords réalistes et réalisables defoo ci tous bu yóbboo ñu xamné bi ni nii dinañ ko respecter ci ni wala ci naa duñu tok sétane suñu ay jigen suñu ay suñu ay chamign yi nek HLM Mariste ngeen dig leen ba ñu genn ba paré du ngeen ko respecter bu ngeen ko respecter wul ñun ñëpp ngeen amal affaire waaye tamit. du ñu toog seetaan vingt hectares yi nga xam ne président kenn forcé wu la yow yaa xam lii yoon yaa xam lii dëgg nga waxal ko sa bopp ne ñii kat nañ leen jox seen vingt hectare vingt hectares yooyu du CIPRES du primature du présidence duñ fi seetaan kenn jël ko caxat caxatee ko bàyyi fi ne fi ñukk waa Tivaouane Peulh kon ñun itam ñu ngi lancer un appel lancer un appel à bépp doomu sénégalais boo xam ne am nga jafe-jafe suuf moo xam sa tool la moo xam sa bërëbu sàmmkat la euh, maanaam sa bërëbu sàmm la moo xam sa dëkkuwaay la moo xam dañoo daaneel sa kër ñu ngi lay lancer un appel ñu ngi lay tàllal loxo ngir nga ñëw fekk si ñu ñun waa HLM Maristes ñun waa Tivaouane Peulh ñun waa FRAPP ñun waa Gàddaay ñun waa Diamniadio ak ñoom seen ngir ñu def benn say ngir wax ak président Macky Sall. ngir suñu aajo faju ngir ñu respecter ak ak yellefu doomu adama yi ñu doon te ak ak yellef bokk na ci le droit au logement. le 22 novembre manam ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru tubab bi ñu nek muy novembre dinañ amal ab doxu ñaxtu doxu ñaxtu bo xam dina joggé place de l'Obélisque jëm RTS doxu ñaxtu bi moy ah 20 hectares yi ñu amel waa Tivaouane Pël nañ leen ko delloo seen impenses yi nañ leen ko fay ba mu mot sëkk ñu compter ko waaye itam suñu mbokk Tivaouane Pël yi nga xam ne mairie bi tas na ñoom itam seeni kër wala seeni fondation mairie bi delloo leen seen suuf waaye itam accord yi nga xam ne ah gouvernement bi signé na ko ak suñu collectif bi nga xamné mo moo ëmb ñii nekk ci immeuble HLM Mariste accord yoyu ñu mën ko respecter.